ñii ñooy fukki ak juróom-benn ñi nga xam ne ah, ñoo ñëwoon. ñoo ñoo ñëwoon liggéey ba ah. ñoom def ko ay atelier. ak la nga xam ne mooy seen kenn ñenn ñu leen lañu ah, jàng. bokkut ak kenn ku ne bokkut ak sa morom la nga xam. nee na mi ngi leen di sant di gërëm bu baax. yéen taxawaay bu baax a baax. nee na yëg na taxawaay bu baax a baax. yëg na taxawaay bu baax gën na am yaakaar lool. gën na am yaakaar lool. mi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. waaw. xool rek liggéey bu ci ne rek dañoo xool ñi ci gën a xarañ ñu ñu ñu ànd koog ñoom ci wàllu maktabaat yi noonu lañ ko aj ci wàllu kulliyaat yi itam ci ci ne daal dañoo xool ñi ci gën a xarañ rek waaw waaw bi ñëw itam leeral nañ leen liggéey bi fa tàmbalee xalaat bi waaw yegg si fii xamal leen ne lépp itam sa xalaat la sa sa sa jëf la doonoon bëgg bëggub sëriñ bi waaye nag jéego buñ ci seqi rek ci seen digal lañ ko teg duñ dox benn jéego itam bu dul ñëw nañ waxtaan ceeg yow ba mu leer bañ am ci ndigal ñu soog a jéggiwaat beneen ñoom itam nag loolu yéen jooju moo leen indi leeral naa leen ne ne ku nekk itam fa mu am kàttanam fa lay liggéeye ñu yàlla may kàttan ci wàllu wërsëg it leeral naa leen liggéey bi ñu toll ci taliatul muridiyya bi ne leen fi mu ne tàmbalee noonu nañ ñeenti bâtiment yoo xam ne bu ci nekk ñetti étage lay doon kaw ak suuf ñoom itam wàllu gi muy wàllu xam-xam te moom itam mooy laltaayu loolee ñoom it ci lañu fekk si ànd ceeg ñoom am nañ ci yéene bu baax a baax a baax baax te nañ ci yéene bu ngi gërëm sant bu baax. nee na mi ngi gërëm di leen sant bu baax. di bég ci yitte ji bu baax a baax a baax. nee na it mi ngi bég ci yitte ji bu baax a baax a baax. dolli na suñu yaakaar lool. nee di dolli yaakaaram lool. gën a dalal suñu xel ci li ñu jëm. di gën a dalal xelam ci li ñu jëm. taxawaay bi gis naa ko bu baax a baax a baax. nee na taxawaay bi gis na ko bu baax a baax a baax. taxawaay rek moo mënta ñàkk. taxawaay rek moo mënta ñàkk. waaye moo jafe nag. waaye nag moo jafe. gannaaw am nan am nan ko ci yéen nag. ne gannaaw am nan ko ci yéen nag. sunu xel dal na bu baax a baax a baax. sunu xel sedd na bu baax. fas yéen rek. nee na ñoo ngi koy fas ànd ak yéen rek. muy liggéey bu rëy bu am njëriñ. muy liggéey bu rëy bu am njëriñ. kon nag mu ngi noonu rek. ñëpp nañu gën yokk suñu itte. ñun ñëpp nañ gën a yokk suñu itte. gën cee jublu bu baax a baax gën cee jublu bu baax a baax. def ci suñu kem kattan def ci suñu kem kattan. buñ ko defee rek la ca des. buñ ko defee rek la ca des. xam na am nañ yaqin ne daañu ca gàttandu. am nañ yaqin ne danañ ñu ca gàttandu. bañ yóbbu ko fañ ko bëgg fañ ko bëgg a yóbbu. bañ yóbbu ko fañ ko bëgg a yóbbu. ci defee suñu ndax buñ ci defee suñu kem kàttan la ca des dañ ñuy booleeg moom yóbbu. la ca des dañ ñuy booleeg moom yóbbu. loolu rek ci am solo. loolu rek ci kon ak ji rek moo ci am kon nag yéene ji ak positif bi ak yitte ji rek moo ci am solo. kon kon nag nan am xel mu dal bu baax gannaaw yooyu am na. la ca des lépp danañ ñu ci gàttandu suñu yéene àgg ca nu nangul ni it jëf ji fulal nil nu ko it ndax it suñu borom day fay yéene ju àndul sax ak jëf bu waaye bu fayee yéene bu ca jëf toppee bu ca jëf toppee da koy ful xel mën naa bañ xam te ful gi xel mën naa bañ a xam fan lay yem benn rek benn rek sunu borom mën na koy ful. mu mat ay téeméer. mu mat ay téeméer. wala mu di ko ful. ba mu mat ay junni. kon nag jërë ngeen jëf. nee xolam sedd na bu baax a baax a baax. sunu yaakaaram dolliku na bu baax. nee na mi ngi gën a boppa boppam ci yéen. gën a feddil ay laxas seen laxasaayam ci yéen. fas yéene gën a yéen rek. jërë ngeen jëf ñaanal leen.